pour le président ci quatre-vingt-dix jours à venir maanaam trois mois mu fixé waat datu. yeneen jour bi muy jour bi muy dissoudre. lay fixé. daf koy fixé. day fixé. mais su ko day fixé ba pare dissoudre. dina amaat li nga xam ne mooy benn problème ci wàllum budget bi nga xam ne war nañ ko voter aussi. waaw loolu tamit mu nekkaat beneen problème Umar. Mhm. mooy que bu fi bu fixé daal di dissoudre assemblée. Mhm. daañu am un problème parce que euh, ren ci budget bi ñuy exécuter. absolument kenn prévoiru ci élection. élection. pour ñu dugal ci élection il faut mu am arbitrage am li ñu naan une un nouveau vote. Euh, une un vote d'une nouvelle loi rectificative de finance ñan ñoo ko war a vote député yi député yi. léegi lenn moo am mooy gentleman agreement bi ma wax. Mhm. ñu déggoo ci kàddu parce que 2016 président Macky Sall. ci référendum bi dafa am benn prox ndol bu mu dugal parce que moom déjà 2016 mu ngi doon calculer ni que. du majorité. bu ñu demee 2017 élection du am majorité déjà calculer na ko woon mu dugal ko ci 2016 ci référendum bi daal di ne léegi. président. mun na sax gouverner même bu amul majorité. assemblée nationale assemblée nationale. loolu depuis 2016 ci référendum bi 2016 ci référendum bi la ko Macky Sall dugal ci biir. Mhm. parce que moom déjà moom xamoon na ni que. il a il commencé à perdre le pouvoir donc mu ngi woon ci logique gu bañ a am une majorité à l'Assemblée. Mmh. mais tey président mën na gouverner sans la majorité. Mm-hmm. bi nga xam ne euh, mu ngi ci biir assemblée. mais en tout état de cause li gën laa wax li gën ci Sénégal tey mooy ñu trouver un gentleman agreement teg ko ci table bi. Mm-hmm. ne d'accord léegi président ci lii ak lii. mun nañu gunge mun nañu gunge nga voté budget bi mun nañu accompagner ba marathon budgétaire bi jeex soo paree bu la neexee nga dissoudre assemblée nationale cest loolu amul benn problème parce que tamit octobre le octobre faw la maraton parce que c'est institutionnel faw la marathon budgétaire commencé bu commencé wul le président est obligé de se référer. Mhm. ci porox ndol bi budget moins un. mooy budget bii nii. bii moom la ñuy utiliser utiliser waat. absolument. te loolu Sénégal je crois que. soo xoolee dépense su état bi dafay yokk. budget boobu mënoo ko mënoo ko continuer di ko utiliser. utiliser mhm. donc moo tax ma yaakaar ni que wax fa dëgg yàlla. Mhm. Euh, aujourd'hui Benno doit revenir. à un réalisme. ils ont perdu le pouvoir. ils ont perdu le pouvoir. mais ba léegi. dara waxul ni que euh, mënuñu dem élection. Mhm. am dix députés vingt députés wala trente députés. gis nañ fi ay gis nañ fi ay parti yu perte pouvoir tey tey tey itam. Mhm. dem élection am cinq députés wala dix députés. Mhm. mais ñoom ils ont encore la chance. jéem a redresser la barre woon Sénégalais yi ne que peut ans yi amoon na ay erreur voici on va rectifier li yëg li yëg li mais ci logique bi ñu jëm nii taxaw taxaw nii. askan bi da leen di jéppi mooy que non seulement askan bi da leen di mhm. mais ils se mettre à dos la puissance publique mooy lan mooy le président la république. Mhm. te bu boobaa nag bu ñu demee élection dama koy ragal de waaye du ñu député yu bëri quoi. du ñu député yu bëri non waa Pastef a nga xam ne mooy seen reñ bi nga xam ne sénégalais yi fal nañ leen fi ñu war a dem ba li nga xam ne mooy deux mille vingt neuf waaye démb ci li nga xam ne mooy déclaration bi Ousmane Sonko doon def bi muy jàkkaarloog waa primature mu wax ba laalaat li nga xam ne mooy reddition des comptes parce que ñi koy jooyante bëri na muy sénégalais yëpp ñoom sax benn promesse la bu ñu defaloon sénégalais yi bi ñuy def élection mais ba léegi voilà dara xewuloon mais nag fan yële ci ginnaaw gis nañ li nga xam ne mooy pôle financier beeg parc financier yooyu yëpp teg nañ ko démb maa ngi seetaan keppaar ngay ngay wax ne <laughs> Mame Mbaye Niang mi ngi États-Unis mi ngi ci Canada mi ngi Canada naan gars yi ñu ngi commencé daw mais ñi ngi wax reddition des comptes gars yi commencé daw est-ce que ñoom liñ ci bëgg kon dinañ ko am Omar xam nga promesse u gouvernement bi mhm. suñ ko tenirul rek ñoom dañ ci am une part de responsabilité mhm. euh, gis nga mesures yi ñu jël nii euh, yi Ousmane Sonko ne jël nañ ko Mm-hmm. mesure yooyu ba ñu defee passation de service nañu waroon jël mesure yooyu. interdiction de sortie du territoire c'est des mesures administratives. Mm -hmm. ce ne sont pas des mesures judiciaires encore une fois c'est des mesures administratives. Mm-hmm. yoon may na ko. may na leen ko. waaw alors mais bu ñu bàyyee Macky Sall dem. Mm-hmm. Macky Sall ndey mbilli gi c'est-à-dire le chef de gang. Mm -hmm. el capo di tutu capi. ñu ne ko yow mun nga génn c'est problématique mooy benn dégg naa dégg naa xaw ma amaguma ci ma leer dégg naa Mamour 94 dem na. Mamour Diallo ah dégg naa dégg naa laa wax de. Hmm. amaguma ci lu ma lay mais Mambay moom leer na ma ni moom Mambay Prodac moom dem na. mais gars yi nañ daa dem jàngi ji day. yokk xam-xam waaw nag Sénégal daa ñëpp ay nañu bëgg doon quoi. man mi sax maa ngi ci docteur yi ah. eh. maa ngi maa ngi lijjanti de maa ngi léegi ma pare léegi ma am sama diplôme de. macha ah, nekk nekk docteur de comme ñëpp hmm. damay nekk docteur. ay baron yi dootuñu ma woowee te grand pape de docteur nañ may woowee. <laughs> voilà donc euh, affaire baa ngoog am na gaa yu dem. am na ña nga xam ne ba gaa yi nekkee fële hôtel Azalaï toogaguñu sax hôtel Azalaï nañ leen fekk otol azalaay ak dossier médical di ñaan permission pour génn dëkk bi xam naa nag ci euphorie victoire bi gars yi ndeysaan ak yërëmande gi gars yi signé signé autorisation yu bëri gars yi génn dem hmm. mais dama ne en toute logique ba ñu toogee lañu waroon jël des mesures de sauvegarde hmm. parce que Umar dañuy wax rapport yi rapport yi nii kërëng kërëng mais Omar y a plus grave que les rapports. Ah xam nga càccu nguuru Macky Sall bi fan la nekkoon. gis nga accord secret défense contrat secret défense. secret défense waay. Omar man ci xayma bu gàtt xayma bu gàtt gàtt gàtt xayma naa. de deux mille vingt temps wu Covid bi. ba deux mille vingt Omar ci contrat secret défense yi plus de mille milliards dugg na ci. plus de mille milliards. dugg na ci. bokkul ak suñ mille milliards Covid aussi. déedéet contrat secret défense laa lay wax. Mhm. gis nga ci càccum nguuru Macky Sall. foofu dañ doon jaaree. PUDC ñu ne la ñuy defar tali yi piste yi fay ci àll yi. Mhm.